mais les raisons sont déjà tout simples tout citoyen sénégalais jouissant de ses droits et en l'âge de se de participer à des élections peut déposer une candidature toi tu peux déposer ta candidature moi je peux le faire Pape Malick peut le faire Amadou peut le faire maintenant le docteur Cheikh Tidiane Gadio est une figure majeure une figure marquante de la politique sénégalaise de ces vingt ou de ces quarante dernières années mm -hmm. c'est quelqu'un qui est presque entré en politique durant ses années de jeunesse il a eu un parcours au niveau de l'AJ de de Landing Savané à l'époque mm -hmm. de 77 à maintenant à, à, au, au début des années 77 il n'avait que 20 ans 21 ans donc il a milité en tant qu'élève il a milité en tant qu'étudiant maintenant les gens l'ont connu qu'à partir des années 2000 parce que avant les années 2000 il faut se dire que il a travaillé ah, c'est en d'accord balaa année 2000 yi moom bi mu demee jàng ji bitim réew. ñëw na presque à vingt six ans nekk professeur au CESTI ñu njëkk a jàngale journalisme télé ci Sénégal la bokk. bi muy jàngale CESTI il avait tous vingt six ans vingt sept ans par exemple boo jëlee ku mel ni Racine Talla ak journaliste yu mag ñuy tudd Sénégal yépp moom moo doonoon seen professeur te jamono jam leen di jàngal daanaka seen moroom la woon parce que vingt six ans nga nekk professeur ça montre aussi de de de l'homme son parcours qu'il a mené du Prytanée militaire parce que les gens oublient que c'est un de troupe xam nañ ni Prytanée ba léegi nii dafay dafay garder marque de rigueur boobu ak marque d'excellence boobu mu jàng liggéey Sénégal créer fi rado bi ñu koy créer bureau lañ ko créé rado bi ñu xamee Aliou Tine mm-hmm. ñuy wax euh, bu ñuy waaw bu waaw bu ñuy no Africa Jom Set rado à l'époque bu ñuy wax SAES e syndicat autonome des de l'enseignement des enseignants du supérieur te ña ko créé la bokk jege Sénégal dem nekk bitim réew jàngale aux États-Unis nekkoon dans une ville comme Ohio à l'université jàngale fa aussi pendant des années il a continué à mener son combat le combat pour l'alternance maanaam bi ñuy xeex nguuru Abdou Diouf moom au niveau de la diaspora day bind lu bëri di at di sur le plan intellectuel mais boo nekkee ci réew moo xam ni daanaka nit ñi du ñu lire la ngay bind ci la ko Ablaye Wade découvrir parce que nit ñi xamuñu ni Cheikh Tidiane Gadio musul bokk PDS Ablaye Wade découvrir ko élection am comment dire en 2000 Ablaye Wade lancé un appel vraiment à au niveau de la diaspora à tous les Sénégalais comme bi mu ñëwee ci la Ablaye Wade téye loxoom ne par exemple kii ma leen di présenter man mun naa leen wax ni alal taxu koo ñëw ndax salaire bi mu bàyyi. Mm. pour ñëw liggéeyal ñu. au moins li mu li ñu ko war a fay ñun en tant que ak salaire bi mu bàyyi salaire bi mu bàyyi ëpp na lii téeméeri junni yoon mën ko juróom yoon. mu liggéey ak le président Ablaye Wade neuf ans six mois installer la diplomatie sénégalaise au sommet de l'Afrique ba ñuy toog naan bu ñu defoon les États-Unis d'Afrique di proposer un ministre des affaires étrangères ñëpp gëm nañ ni moom lay doon ndax jamono jooju fu tàkk-tàkk am fu coow am les accords de en Côte d'Ivoire xam nañ Côte d'Ivoire la fa woon au Madagascar au en Mauritanie maanaam sa diplomatie a permis au Sénégal encore de rayonner kooku moom ak Ablaye Wade ñu am problème bi ñu demee ba jàppe ni dafa am ce qu'on appelait la dévolution dynastique ou bien la dévolution monarchique du pouvoir mooy quand on a voulu installer le frère Karim Wade def ko le ministre de la terre de la mer des cieux des animaux de n'importe quoi mu ne leen non Karim n'est pas le seul Sénégalais Ablaye Wade loolu donc moo doon catam coow loolu am ñu génne ko ci gouvernement bi mu créé partem tuddee ko MPCL mouvement panafricain citoyen luy jot jot na parce que li nit ñi xamul toute sa trajectoire c'est une trajectoire de panafricanisme de Kourouma de Patrice Lumumba de Cheikh Anta de Mamadou Dia boo xoolee ki mujjee interviewé presque Thomas Sankara moom la donc moom il na vit que pour l'Afrique malheureusement au Sénégal même au niveau de son parti même ñun ñuy ànd ak moom dañ ne ko presque tu n'as tu ne t'es pas occupé du Sénégal parce que mooy koo xam ni bi mu génnee ci nguur gi ba léegi parce que aussi nit ñi war nañoo xam ni politique nit ñi defuñu ko métier boo génnee fii dafa yor cabinet mu nekk benn think tank de ko IPS Institut panafricain de euh, de stratégie mu paix sécurité développement au niveau de l'IPS il na fait que continuer un travail pour la paix pour la sécurité pour le développement bokkul ak ñi nga xam ne ils veulent faire de la politique 24 heures sur 24 vivre de la politique parce que en 2012 maintenant bi mu demee ci élection présidentielle yi élection yooyu yàlla dogal mhm. Ablaye wadd bëggoon def troisième mandat peuple bi ànd ne ko déet yàlla def Macky Sall gagné élection yooyu parce que bi ñu demee deuxième tour coalition bi daaneel Ablaye Wade ñu tout le monde s'était regroupé derrière makisal daanaka ñu ñu gagné ci année boobu la ko Macky Sall moom le ministère de l' éducation nationale ne ko kaay ma jox le ministère de l' mais maanaam ministère éducation Sénégal boo xoolee ni muy doxee dañ ko def ay pàcc pàcc enseignement élémentaire enseignement moyen secondaire enseignement supérieur. Mhm. mu ne au président Macky Sall l' éducation n'a pas besoin de trois ministères boo ko regroupé. en un grand ministère de souveraineté parce que moom daa gëm jàng daa gëm éducation def ko un ministère de souveraineté mun naa la ko téyel parce que on n'a même pas besoin d'avoir des gouvernements pléthoriques de ay trente cinq ministres ak quarante ministres mais boobu le président Macky Sall était dans une logique de récompenser des partenaire loolu dong moo tax jëlul ministère boobu mais kan la ñuy ban politicien sénégalais la ñuy woo parce que ñii ñi fiy politique yëpp day ndoog dañuy politique pour ay postes dañuy politique pour ñu nommer leen ministre loolu sax c'était une incompréhension au niveau de son parti parce que il l'avait dit je ne prends pas ministère pour que nit ñi rek naan maa ngi ci nguur gi maa ngi ministre la parce que ku war ñay ba wàcc loo warati xeeb ko neuf ans mois longévité boobu au niveau des affaires étrangères du Sénégal yaakaar naa ni nit mënu ko. d'accord dinañ ci ñëwaat.